jub see rek Macky ne social <laughs> ah day politique kay boobu leen rek xam xam nga des président day def loo xamante ni day flagrant tellement que moom da naan sax moom boobu yanam nekkul ci gars yi comprendre am ñàkk eh, eh, <laughs> a comprendre parce que soo seetloo l'occasion yi bañ koy wax 2014 loolu la amoon 2014 élection locale mu xam ne affaire ci gox goxaat yi la location bi day impacté foofu mu wax wax wàññi waxaatu ci la ci waxaat bi te xam nga Pamadar yow yaa ngi ne euh, budget six mille presque quatre cent milliards loolu c' pour onzième année bi ah vingt deux mille vingt trois loolu pour onzième année bi la hmm. léegi ana dix budget boobu. loo loolu soo ko calculé quarante mille milliards. mille milliards te loolu boolewuma ci dette bi dette bi nga xamante ni tey maa liir tey suba. extérieur ñu ne <laughs> le ministre Moustapha Ba mu ngi naan Sénégal war naa lebaat. mille milliards ah milliards. su ko ci dollee mu nekk quinze mill milliards. non mais xam nga Macky Sall moom président Macky boobu dafa nara a vider compte yi Sénégal vider compte yi vider compte yi ba ñu nekk ay moyens li <laughs> foofu lañ nar a jël vider compte yi ba ñu nekk ay moyens ba pare yor bor boo xamante ne nii parce que PAM daal bu ñu ne nee eh, quatorze mille milliards yi ñu ne Sénégal leb na ñu ne la terre bi nag bu leen fàtte de terre bi ci la bokk te dafa am solo. ah léegi ñu ne la terre boobu est-ce que mun na permettre Sénégal tey mu rembourser nu mu turee di waxuma sax dette bi yëpp de mais lu ñu lebee terre bi rek rentabilité di nga terre bi bu doon daw ba daw fii ba deux mille quarante cinq sax Sénégal du du ci génne lu mu ci def bu doon daw ba deux mille quarante Sénégal du génne lu mu ci def parce que fi mu toll nii ah nu mu duratee ticket yi ñuy jaar nii c'est comme si quelque part dafa am subvention bu existé wu donc rentabilité zéro. très bien. autoroute à péage. autoroute à péage ay concession vingt cinq ans trente ay AIBD nga xamante ne nii Sénégal <laughs> non mais ñun dañoo may ji yoo xamante ni wax dëgg yàlla jubuñu quoi Sénégal ñu ne pour ñu tabax aéroport bi. loolu montage financier boo xamante ni Karim Wade moo ko xalaatoon ñu ne léegi kuy génn ci euh, Sénégal jaar aéroport dañuy teg ci sa billet avion 30 euros loolu dañ koy yóbbu ci benn compte séquestre compte séquestre mooy compte boo xam ne def rek la mën amul génne. <laughs> compte bloqué waaw comprendre léegi pendant près de dix ans ñuy jël ci kenn ku nekk 30 euros bi def ci. Euh, compte boobu mu leer na ne boo jëlee lañ ko dajale bañ koy lancé deux mille cinq ba bi ñu ubbi aéroport bi deux mille dix neuf mën na dugal loo xamante ne nii ah tabax na ñaari aéroport yu mel ni bu jaxe non non booy génn Sénégal rek jaar aéroport dañuy teg sa billet avion trente euros ay ay ay mm-hmm. ñoom ñu ko tuddee woon RDIA redevance de développement des infrastructures aéroportuaires te 30 euros boobu yemuñu ci loolu sax xam naa naa si ñëwaat génnee papier yi les décrets yi nga xamante ni Abdoulaye Wade moo ko signé pour nit ñi gën a comprendre li nga xamante ni moom la Doudou ko wax ci aéroport bi parce que c'est très grave dafa mel ni yow nga dajale xaalis bu mën a tabax ñaari aéroport nga tege noonu xaalis bi ne aéroport bi sax dañ ko wale woon c'est exactement comme ça que ça s'est parce que dafa def sorti mu ne génne ay papier mu ne léegi nag yegg nañ ci remboursement aéroport bi comme si ñun dañ koo leboon alors que loolu compte séquestre bi bi ñu ko ubbee en cinq kuy jaar aéroport bi nga ko boo compter moyenu nombre de passagers yi jaar ci aéroport par année mm. day mat mille en moyenne. muy xaalis bu dul jeex ay milliards de francs CFA ñu ñu ñu ñu boo xamante ne dañ koo gas suuf léegi. boo ñëwee nga jël quarante mille milliards tegee ne le quatorze mille milliards tegee ne tey euh, denrées de première nécessité yi amul benn bu ci wàññeeku Sénégalais yi tey li daan jëndee ceeb tey la gën a cher lañ daan jëndee mburu tey la gën a cher lañ daan jëndee diwlin tey la gën a yokk ah léegi kon kay mooy quarante mille milliards yooyu nen na dafa mel ne rek sept cent soixante six milliards yi ñëw dañ koy dugal ci inondation yi. ana xaalis boo xanaa dañ koo dajale euh, sànni ko ci géej gi noonu rek la mën a demee donc bu président ñëwaatee ne 6 000 milliards te 6 000 milliards yooyu Pape Matar ñu ne li koy expliquer mooy euh, euh, exploitation sunu pétrole bi ak sunu gaz bi ñun Sénégal de ressource am ëpp ressource su te Qatar tey nu mu dul day imposer ay loi am. waxuma la Asie sax mais ba France ak feneen ak feneen te yaakaaru ko lu dul ci pétrole ak gaz amul zircon amul amul or amul phosphate amul géej amul leneen ak leneen gaz pétrole la yaakaar ñun ñu am ko continuer di ndóol ba léegi Qatar am loolu génn ci euh, sous développement bay dimbale yeneen yi dëkk defe naa foofu la. Sénégalais dinañ ko wax Pape Matar parce que tey jii bu ñu xoolee situation bi nga xamante ni ñu ngi koy dund euh, wax na Mame Birame wax na ko les mille milliards yi nga xamante ni ñu ngi naan moom lañ ci war a yokkaat encore te moment boobu amul euh, ci déjà xaalis bi fi nekk amul benn répercussion boo xamante ni am na ko ci la vie quotidienne des des des Sénégalais amul. gisuñu ko parce que dañ ay chiffres yoo xamante ni peut-être li muy génnee c'est des chiffres virtuels peut-être la ñu mën a wax parce que dafa traduire réalité wu yi nga xamante ni moom la ñuy dund à chaque fois euh, ci ci ci réew mi traduire ko benn yoon dañuy budget bi day yokk et pourtant ressenti boobu amul ci auprès des populations ressenti wu allègement par exemple de leurs conditions de vie boobu ba tey dañ ko fi dul gis industrialisation bi ñu ngi koy wax mais tey jii loo gis euh, ñoom xëy na daf leen di arranger mais parce que bu fekkee yow population bi moom rek moom moo tax intérêt mais tout ça am na ci ay unité yoo xamante ni war na leen ci taxawu unité gis nañu les femmes qui travaillent ci yenn euh, transformation de produits halieutiques yi produits halieutiques yi bien vrai que tey ji ñu ngi naan sax géej gi amatul jën xaw ma nag léegi fan la nit yi jën a jëm parce que ressources yi fi nekk également il faut que exploitation bi ñu xool ci yan anam lay demee et tout ça bu fekkee nag yow loolu doyutul yaa ngi bëgg dem di uti jiwaat 1000 milliards pour bor goo xamante ni di d'ici combien d'années encore lañ ko nar a nekk di fay fay boo xamante ni ça va être une situation boo xam ne moom mooy continuer ci dynamique boobu rek maanaam da ngay nekk toujours demandeur nekk ci position boo xamante ni say bor moom doo ko mus a fay du coup coût de la vie boobu de metti toujours ci askan bi population bi dañuy gën di sonn donc ce ne sera pas demain la veille comme ni ñuy wax euh, que ni problème yi dina dàkk euh, surtout ak euh, budget boo xamante yi ñenn ñi ils se glorifient naan 6400 milliards 2023 mais est-ce que xaalis boobu dina am benn ressenti boo xam ne population bi ci seen euh, vie de tous les jours dinañ ko ci dund également dinañ ko ci yëg. waaw saa yu ma déggee léeg-léeg ñuy wax croissance man ne leen croissance daal moo ma gënal croissance. parce que croissant danga koy lekk léegi nga xam ne lekk naa ko naan naa ndox suur na waaye croissant yoo xam ne ci ay këyit te boo boo boo génnee ci biti nga gis pauvreté boo xam ne danga ciy teg ci sa bët war nañu se xoolaat euh, nañuy nañuy priorité dama yaakaar ne suñu problème bi itam bokk na euh, dañuy dul def ay priorité dañuy jël lu bari sotti ko fenn fekk am foo xam ne daay la boo xam ne dañ ko waroon fay d'abord euh, loolu yaakaar naa ne par exemple li ñuy wax ni yëpp am na secteur boo xam ne bu ñu ko développé woon rek mu mën a euh, solutionner ay problèmes yu bare bare ci biir Sénégal mooy agriculture. Mm. mais agriculture boobu tey dafa dafa nërmeelu dafa dee. nga xam ne par exemple bu njëkk ba boo daan fàttaliku gerte mu daan produire ci ay gerte nga romb ay dëkk yoo xam ne dañuy jor gerte mu bari noonu ñu koy taaraar ak yu mel noonu loolu tey euh, daanaka gisa gisatuloo ko boo demee ci béréb yi ñu ko daan béyee da ngay gis ndaan da fooy fooy boo xam ne dara nekku fa. ñi nga xam ne ay béykat lañu woon ñëw nañu Dakar Dakar xat ñenn ñi dugg ci géej gi faf la yem foofu hmm. ñu yaakaar ne mbëkk mi moom mooy mooy solution bi euh, dama jàpp ne réew mu nekk la lay développé mooy sa réalité sa environnement ni mu mel foofu ngay sukkandiku pour mën a développé ñun nag yàlla li ñu séddale mooy suuf si mbéy mi foofu loolu moo nekk ak géej gi loolu moo nekk suñu kanam pour ñu war a mën a développé ba pare nag ñu ja ñu euh, nërmeel ñu salfaañe loolu nga xam ne mooy mooy mooy agriculture. Mm. boo demee ci yenn réew boo demoon fu mel ne Fra euh, États-Unis béykat yi ay fon ay ay ay kilifa lañu béykat yi dañuy dimbalaate mais fii Sénégal toujours boo bëggee dimbale sax neel béykat la man béykat laa rek dimbali leen ma au lieu que béykat boobu moom la ñu waroon seentu mu mu mu dimbalaate. Euh, ndax moom mooy ki nga xam ne mooy produire li nga xam ne dafay ajouter dara ci biir ci ci kii mais bu ñu yaakaaree ne passante ay marchandises rek mooy mooy indi développement du loolu kii jënde ko 750 yu kële jaayee ko 1000 francs loolu yokkul benn poids ci biir euh, biir dëkk bi dama yaakaar ne daal balaa ñuy développer fii ci Sénégal il faut ñu développer euh, agriculture d'abord ñu delloo askan wi ci tool yi ñu béy mën a produire loo xam ne. luy luy luy luy génne askan wi ci doon bi ñu nekk la waaye sinon bu fekkente ne dañuy tubaab tubaab la di ay tubaab yaakaar ne jom jomb def sa bopp sa yenn liggéey nga jàpp ne moom euh, agriculture bay moom man euh, rus naa may nekk béykat te boo nekkulee béykat réew mi du loolu yaakaar naa ne bokk na ci suñuy feebar yi mooy rey bi ñu rey mbéy euh, à travers rey mbéy moom ci boppam rey ñu. mais béykat yi oustaz ñoo ëpp xaalis yeneen réew yi. États-Unis les fameux on les appelle les fameux xam mais fii nag moom boo nekkee xam nga Oustaz dañuy yalwaankat yi sàmmkat la xam nga Oustaz le premier problème xam nga mooy bu ñu nee 60 pour cent de la population ci mbay la loolu la ñu yàgg a wax suñu leçon yi très bien 60 la population ci mbay la ñu nekk léegi ba pare mbay moomu de 4 mois lañ ko mën a def ci année bi mu mu yem fa léegi yeneen mois yi nag mooy toltolaat lay doon. ah waaw. jaajëf xam naa na naa membre bu fi jógee dina delluwaat seeti toolam yi. waaw eh, non gis nga gis nga Moussa bi ma jógee Maroc di ñibbi si Sénégal. waaw waaye rek laa bëggoon. Ah, ah.